mbokk yi maa ngi leen di jaajëfal sénégalais du l'extérieur yi ñoo ma tax tey ma jël kàddu ndax am lu ma metti ci lu néew at ëpp na fukki sénégalais yoo xam ne rey nañu leen ci sénégalais yi nekk extérieur lu néew fukki fan Ibou Diène la ñu dóor bal ca Italie ñu koy jooy noppeeguñu Mame njaay am trent ans juddoo Mbàkke seen kër nekk Pire ay alkaati di ko dàqe ca Espagne ndax da doon marchand ambulant ba bakkanam daal di fa jaare ma jaakaar ne nag jaadu na ñu bàyyi xel ci suñu mbokk Sénégal yi nga xam ne dañooy dund ca bitim réew ndax nag dañoo am solo lool ci réewu Sénégal ma ba tax ma yaakaar ne jaadu na ñu bàyyi xel ci politique de protection et d'assistance de chez les sénégalais de l'extérieur ak bari une réaction diplomatique ba ñi nga que nous sommes ñoo nous wàllu nous di yu Nous ñu sentir am na ci ay it les sénégalais de l'extérieur ndax maillon essentiel lañu ci li nga économie 1000 milliards Les ñuy duggal at mu Sénégal 1000 milliards suñu budget Sénégal boko yoon 1000 milliards bari na ay secteur ci économie Sénégal yo xam bo len toll at mu nekk Sénégalais de l'extérieur yi ñu xel politique d'intégration Violent y xel ci politique d'assistance ndax nag bu ñu réussir na ko kon jaadu ñu nit ñu a ci tànk leneen am solo en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle ma ci Sénégal suñu mbokk sénégalais de l'extérieur bu ay njabot yu bari ñoy tabbi ci guuta tabbi ci torox tangé ndé sénégalais de l'extérieur bu nekk amna jom fulaak fayda jo xamné mu ngi taxawu njabotam di taxawu ay wayjuram di taxawu ay tantam di taxawu ay mbokam ti sa su nekk ñu ngi ci ordonnance ñu ngi ci fayum facture yi ñu ngi ci dimbal gi ñu ngi ci hospitalisation yi et cetera et cetera kon ñooñu di les sénégalais de l'extérieur dafa jar ñu bàyyi leen xel ci poids bi ñu am au niveau social mais également au niveau économique. li sénégalais di dundu bitim rew man matna ci cédé ndé nde na New York sama mbokk bawol bawli dama don ànd ak ñoom week-end di dem di def marchand ambulant ngir mëna fay sama njàng kon ñom seeni jafé jafé man mi xamna ko xamna ko ba tax may sàkk ñu gën leen a bàyyi xel ñoom les sénégalais de l'extérieur li ma ci gën a métti it te ma jàpp ko sama xol boobaak léegi moo di sénégalais de l'extérieur bu faatu faw ñu màjjal faw ñu def collecte ngir mun a fexe ba moom néewam ñu indi ko ndakaaru loolu ci ñoo xam ne dañoo nekk pan essentiel ci économie bi amit poids social ci réew mi war nañ cee bàyyi xel ba suñu mbokk sénégalais bu nekk ci jafe-jafe wala néew bu ñu war indi fii ci Sénégal fii ci Ndakaaru ñu mën leen cee taxaw ngir mu doonuk tawféex doon it soulagement ci les sénégalais de l'extérieur jaajëf ay jàmbaar ngeen yal na leen suñu borom taxaw